waaw maa ngi leen di remercier parce que en fait euh, fii dañ fi toog rek pour leeral. waaw pour lu jëriñ askan wi. Mhm. Euh, fii c'est des des familles de militaires. Mhm. des militaires même. Mhm. qui ont servi l'État pendant euh, très longtemps. qui ont donné même de leur vie. il y a eu des blessés de guerre il y a eu des mutilés il y a eu des des des des des veuves il des orphelins. alors terrain bi terrain privé de l'État la. bokkul dara ak ñoo xam ne dañu nekk au sein d'un cantonnement militaire cantonnement boo gis ci Sénégal dañ ko délimité cantonnement armée de l'air bii ngeen di gis dafa am ay limites fii euh, kii euh, clôture bi nekk noonu foofu mooy seen limite ñun fa ñu dëkkoon bokkul ak cantonnement bi c'est un terrain privé de l'État état bi mënoon na toog ba mu neex ko mu ne hey jóge leen man damay def lii dama ko. mais c'est rattaché au cantonnement non. c'est bu ñu la dégloo ci sa explication parce que ba ñu leen fa indee. c'est pour pouvoir être beaucoup plus proche. de les les les bâtiments c'est le mm-hmm. mais le terrain en tant que tel. est un terrain privé de l'État propriété de l'État du Sénégal. kooku c'est kooku une précision. ñeneen ñi dëkk ci biir cantonnement. Mm-hmm. nekk ci cantonnement militaire. retraité ñun bu fekkonte ne loolu c'était en vigueur kon armée du ñu yóbbu tribunal comico du ñu yóbbu tribunal comico encore une fois moo wax leen ko c'est une entité à caractère civil c'est une coopérative elle nen elle n'a rien de militaire c'est des adhérents ñoo ñëw cotiser seen xaalis former seen coopérative pour am ay kër bu la neexee nga adhéré bu la neexee nga bañ bu la neexee boo adhéré nga jëlaat sa xaalis dem sa yoon comme sa fut man sama bopp donc ce qui s'est passé c'est ça le ministre Sidiki Kaba déclaration ba mu joxe keroog euh, c'était une déclaration dérobée moom ci boppam catastrophe am na il fallait qu'il se justifie mais ça du woon encore une fois man maa demoon. Mm-hmm. état du Sénégal euh, en fait présidence nañu leen woon papier comme quoi daf dañ ñu indemniser. du indemnisation te dañ ñu forcer xaalis boobu parce que soxlawuñ ko noonu woon ci anam yooyu. dama la ko soxla pour que ngeen koy accepter en ce moment non non euh, en fait ñun du woon ñun rek. ok nous avions nous étions euh, constitués des partenaires des soutiens dañu déggoo woon ci ndéem leen jëli xaalis boobu. la preuve ah, noonu la ñu jëlee xaalis boobu dix millions yow fi nga dëkkoon pour eh, pour une précision. Mm -hmm. euh, les les bâtiments bi ñu ko état du Sénégal promettrait à travers un un un plan cadastral il un plan qui a été sorti boo xam ne ñun ñëpp les soixante dix neuf familles nous avions nous étions logés dedans mm -hmm. avec les noms de chacun au regard de son bâtiment mm-hmm. ba loolu amee état du Sénégal war a ci affaire ni ma leen ko waxee woon avec euh, disons l'accord du de l'ancien SEMGA et de toutes les parties parole d'état parole d'honneur la nos avocats nous avaient demandé de valoriser nos maisons les gens même avant loolu sax kër yi dafa nekkoon ay kër yu à peu près yu délabré intérieurement ça allait mais extérieurement les gens ont investi les militaires ñi ci dëkkoon ba ngay nekk en activité boo demee mission dellu si sa per diem nga sotti ko ci kër gi boo boo boo boo lebee xaalis sotti ko ci kër